xool di waay xool di waay day tànnal waay. waay. xool di waay. yow caw nga ngoy faal de xam nga loolu. ngeen am nekk eh, nga tourné naa la. maa ngi lay fay nagu. mais def nga sañse. merci beaucoup ci loo nekk. maa ngi sant naka mu tey lan nga yëg tey. waaw kontaan kontaan rek di samay xarit ak kontaan vraiment. ñu gisoon nga defoon takk jàkk foo sànni mbatt mu daal di takk mhm. tey nga daal di am sa doom di ko njënte tey di sa taaw fat mhm. bintu yal na màgg ba ngeen fekkee njëriñam fii tey kenn xaju fii ñu ngi ci mhm. terrain basket bi mais mu ngi fees dell <laughs> lan nga yëg tey kontaan rek comme ni ma ko waxee woon sànq parce que boo xewlee gis say mbokk say xarit say dëkkandoo dafa neex dafa neex da yow la am nga ñëpp jàmm am nga ñëpp wax sa goro bi mu yegg see délégation ba léegi mu ngi sourire ku ko xool nga xam ne bés bi ñor na ko te kontaan na. waaw sama xarit la sama copine moom moom ma fayam vraiment sama xarit la daf ma moroom lu ñu neex la ñu ñoo koy bokkoo macha allah moom sama xarit la. Mm-hmm. sa boroom kër Ibra moom it daal dina wax ci yow wax ci sa yaay dem na ba ne sëy bi bu tollee fii sa yaay bokk na ci ñi ci jàpp ba tax tey sëy bi daal di am ba toll fii tey loo koy wax. moom moo baax rek moom moo baax rek ñëw suñu kër. parce que mënul naa ko bëgg man moo amee beneen comportement suñu biir kër bu sama waajur bëggul du mu bëgg day sonn di métti waaye kon noonu lay demee mais moom moo ñëw ak baax yaru wane jikko bu rafet macha allah moo tax suñu waa kër sa yaay nee na tey kenn du ko jam naa ni mm-hmm. ndax doomam daf ko déggal mu yar ko fi mu ko war a yare mm-hmm. tey dina teral say goro ba bu ñu ñibbee Cees mm-hmm. doot ñu fàtte Ndakaaru dëgg la leer ci loolu waaw <laughs> ah, sama yaay jàmbaar sama yaay mooy jigéen ju mën góor barke Serigne Touba kenn fekk ko ci ñun moom rek ñun ak moom rek ba ñu xale ba léegi ñun ak moom rek kon moom bu defee de def na la ko war jàmbaar la ñu gisoon biñ la biñ la takkee bàyyi juróon na coow lu sew tey di sa bisaat encore j'espère que bii pas lépp jàmm am na ah jàmm musul ñàkk jàmm musul ñàkk dafa fekk nii rek àdduna moom ñii kenn mun nañoo bañ a bañ sax waaye xam nga rek àdduna moo demee noonu yenn saa yi mu xaw def nii rek mais àdduna amul solo yooyu yëpp garaawul. Mm-hmm. d'accord ah, tey ah, fi mu ne nii nag yaa ngi ci sa deuxième sañse mm-hmm. il est deux heures du matin te nee nga pareegoo fan nee na fan nga jëm. <laughs> fajar laa jëm. <laughs> fan nee na wàññil boo jëkkoo say say noonu rek leen di baal. barki yàlla géwél yi ñoo xewale. te bu ñu xewlee du yomb. sa taaw ngay xewal. mu ngi noonu ay ca bisu dañ lay daal di bàyyi. merci nga waajal waajal